malheureusement heure bi jot na parce que bu ñu déggee Colobane xoog rek mhm. euh, xel day dem ci fan xoog kon daanaka mhm. benn ni ñu euh, leen sosee ñu dem RFM gaaw ñoom ñuy mhm. dalal tey Mamadou Ibra Kane moom moo jiite CDEPS di comité bi ëmb njaatigee ci wàllum presse waaye tamit CAP di coordination des associations de presse bu huit heures jotee incha allah ñu dellu si ci ñaareelu pàcc bi à tout à l'heure bokk itam ci CAP di mbootaay gu geneen gu gën a yaatu nga xam ne lépp luy kuréelu association bu nekk ci presse bi Sénégal ci ci ci lañ bokk gis nañu euh, keroog euh, samedi euh, foog na àjjuma ngeen gont dem buntu 7TV amal fa rassemblement gannaaw ba ñu dalee ci kaw may Maimouna Ndour Faye di ki sos ak jiite seenu télé boobule. wala ñoo sori ndax tane nga ñu ci ci enquête bi ci ñi ko def ñaawteef googu ci agressé gi ko agressé guddik alxamis jàppal juma. le moment. man ma jëm bopp am benn information euh, loolu déjà rekk war na tiital doomu Sénégal parce que ñaawteef bu mel noonu bu amee si réew mi vraiment am nañu ay forces de défense et de sécurité yu xarañ am nañu justice bu compétente donc bu amul. Euh, résultat ci enquête bi war nañu tiital maa ngi fàttali ne fan yële ñu génn suñu benn consoeur dañ ko agressé te buñ ko agressé dañu vidéo agression bi ñu am son numéro de matricule te euh, affaire bi mujjewul fenn. mooy policier bi. Euh, daloon ci kaw journaliste bu jigéen itam. waaw waay journaliste bu jigéen tamit waaw mu ngi mel ni temps yi dañu taamu jigéen ñi si mois de mars bi wala li ko jege euh, loolu nag vraiment bu amee si réew euh, war na euh, indi tiitaange bu mag a mag tiitaange bu mag a mag pour journalistes yi ak techniciens des médias yi mais bépp citoyen parce Euh, bu ñu demee ba euh, agressé physiquement léegi sax dootul agression physique mais tentative d'assassinat tentative de meurtre réew nag bu tolloo foofu mooy mbir bi graaw na moo tax euh, ci bataaxal bi nga xam ne patronat de la presse génnee na ko dañu woo euh, on en a appelé euh, au président de la République, au gouvernement, euh, à l'Assemblée nationale, euh, à la justice, au force de défense et de sécurité ne situation bi Sénégal nekkee tey vraiment situation bu nga xam ne euh, du jur jàmm ëllëg waaw parce que Sénégal liñ ko xamee mooy dëkk. jàmm la paix dëkk teranga donc ñaawteef yooyu bu amee day tax kenn dootul nekk en sécurité képp ku nga xam ne euh, sa doxalin méngoowul ak euh, euh, les autorités ak ak position autorité yi wala sax dañuy faral di tuumaal uniquement l'État <coughs> mais également am na yeneen force yu nga xam ne y compris celle de l'opposition yu nga xam ne dañuy mener ay actions euh, contre euh, les médias euh, muy entreprise de presse yi muy muy journalistes yi muy techniciens yi. est-ce que seetaan amut ndax xupp yi yàgg na yemul sax ci xuppu song am na fi. waaw xam nga euh, ñun nañu waxante dëgg. euh, depuis particulièrement euh, mars 2021 mm-hmm. situation bi dafay dem luy tubaab bi di wax de mal en pi te euh, dañuy génne ay déclaration dañuy <laughs> def ay sitting dégg nga mais euh, war nañu xoolaat suñu bopp euh, pour que ñun suñu bopp ñu bañ a cautionner li nga xam ne moo dal tey te presse bi euh, par rapport à la liberté de presse et par rapport à la liberté d'expression donc il faut que ñu am sañ-sañ ñu bañ par rapport à cette situation là parce que euh, tey euh, Maïmouna Ndour fay la ak may Maïmouna Ndour fay façon position bu munti am mais moom journaliste la am na droit wax euh, lu ko neex jamono comme ni ma ko daan waxee euh, Sidi Lamine Niass amoon na droit wax lu ko neex dégg nga euh, bépp sénégalais war na mun a wax lu ko neex fii si réew mi parce que loolu mooy démocratie problème bi nag mooy léegi ministre de la communication am na sañ-sañ. daal di couper signal wala euh, na mu ne sax dafay suspendre la licence et loolu en violation totale de la loi dëkk nag bi nga xam ne euh, li nga xam ne mooy dooleem muy état de droit bu ñu naxasalee état de droit boobu c'est-à-dire stabilité politique ak économique euh, bu amoon fii Sénégal dootu fi amati. mais ministre bi moom du du def lu Macky yëgul moom kay nañ ni Macky rek parce que xam nañ ni fii euh, dogal yu ni mel moom doo ko jël te président yëgu ko ay dagg licence ak ki tëji tëji télé ki rajo ñu koy Macky rek. waaw xam nga man euh, du ma homme politique dégg man dama jiite te kuréel bu nga xam ne moo ëmb les de presse man li ma gis cest à li nga xam ne. Euh, am na fi mooy euh, le ministre de la communication moo jël sañ-sañ dans un premier temps il un an mu coupé signal bi euh, amul benn euh, texte bu nga xam ne may na ko sañ-sañ boobu ñu ñu teg si mu am ay manifestation yu nga xam ne àddina bi yëpp gis nañ ko ci BDN bi Euh, mu jël ci prétexte ne euh, dafay retirer la licence euh, d'un groupe de télévision donc réew boobu vraiment te ñun ñi journaliste war nañu mun a di faram fàccee action yooyu pour wane nekk que c'est contre la loi <clears throat> et ñu mun a fexe ñu nekk ñu mun a xeex jël ay jéego yu nga xam ne suñu droit yi kenn du ko violé. su may naan seetaan nañu gis nañ fi song nañ fi mars 2021 euh, kër gi fii euh, song itam nga xamante ñoo di Le euh, Soleil ay taskatu xibaar ñu leen di tere sax ci ay conférence de presse mu nekk ci opposition wala mu nekk ci pouvoir bi naka noonu itam ay journalistes yi nga xam ne ñu ngi leen di exfiltrer parce que c'est des hommes politique ñoo leen di exposer ci ay xew-xew yi nga xamante ne mu ngi fii am. est-ce que euh, li mbeteel la est-ce que nit ñi seetaanuñu. no seetaan nañu ñun ñuy journaliste sax dañu seetaan. Mm. ñun ñuy journaliste sax amuñu courage wax li euh, li am euh, ñun dañu war a mbooloo mànkoo Babacar mu ngi wax léegi am na benn kuréel bu nga xam ne moo ëmb. euh, l'ensemble euh, des associations de presse muy la coordination des associations de presse kooku dafa dem au-delà de euh, segment bu nekk au niveau de la euh, de la presse euh, moo ëmb mbootaay yépp dañoo war a dooleel structure boobu ñun ñuy journaliste d'abord et technicien des médias patron Euh, dañu war a dooleel structure boobu pour que ñu mener un combat pour la liberté de la presse. même est-ce que bu ñu ko dooleel itam te ci suuf euh, taskatu xibaar yi di seen ci seen biir di joxoñante. non xam nga euh, mënuñu am une position unanime au niveau des journalistes des techniciens des médias et des patron ñun ñëpp ay sénégalais lañu. Euh, am na ay journalistes yi nga xam ne tey lu leen di dundal du seen liggéeyu journaliste am na ay entreprise de presse yi nga xam ne lu leen di dundal du seen activité en tant qu'entreprise de presse en tant qu'entreprise des médias dafa am li nga xam ne moom lu ñuy wooyee ay lobby yuy financer les entreprises de presse. oui malheureusement. moo tax ngay gis euh, journalistes yenn yi féete. benn boor yeneen journalistes yi féete beneen boor. mais euh, am te nag euh, euh, ay am d'affaire la ay opposants ak ay nekk ci nguur gi. waaw infiltré presse bi. waaw di génne ay yéenekaay. non non non du seulement. ñooñu ñoo war a xam ne yéenekaay yi ngeen di gis ñoo di seen whatsapp yu ci bëri ay faux la mën nañ ko waxee noonu ay faux yéenekaay la parce que taxawaay amuñu taxawaay ak maqaama nekk journal. waaw xam nga àddina bi dafa jaxasoo. dafa compliqué mais ñun ñoo war a comprendre ne yéenekaay bu nga xam ne bu dee journal comme ni ma ko limee euh, bu dee journal même boo jaayoon sa exemplaire yëpp du tax nga mun a fay say charge asamaan nag nga rentable donc loolu mooy wane ne que am na ay lobby yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw bu ñu nga xam ne du rentabilité entreprise de presse bi moo leen intéressé mais ñu def une politique de lobbying te euh, lim na Babacar lim na euh, les hommes politiques de l'opposition comme du pouvoir euh, l'état ci boppam ah mais l'état ci boppam parce que damay wax ne que am na jamono yu xew enfin léegi mot na quelques années am na ay journaux yi nga xam ne dañu am ay convention yu ñuy signer avec les ministères c'est-à-dire man je suis ministre de la République man dama am ay actions politiques yu may mëne pour ma mun a am écho euh, au niveau de l'opinion à travers un journal une radio une télé dégg nga mais du politique rek ñoo nekk comme lobby dans la presse euh, il y a le pouvoir économique bu nga xam ne mu ngi si presse bi il y a le pouvoir religieux bu nga xam ne mu ngi si presse bi il a même des ONG qui ont des ramifications au niveau de la presse loolu nag bu amee fii si Sénégal euh, Sénégal bu nga xam ne dañ ko mus dañu mus a bàkkoo une presse républicaine bi nga xam ne comme ni ma koy faral di wax moo permettre suñuy ñaari alternance politique 2000 ak 2012 aujourd'hui presse boobu mu ngi disparaître et presse boobu bu disparaître nag euh, loolu moo gën a graw dégg nga li mun a am fii ci Sénégal parce que comme la presse est un enjeu de pouvoir presse bi day permettre ñu façonner ay images day euh, day permettre ñu inculquer ay valeurs euh, presse boobu bu fekkee ne ay lobby ñoo ko contrôler donc presse boobu dootul servir les intérêts du citoyen sénégalais te loolu nag. moo gën a garaaw li mun a am au niveau de la presse. est-ce que tax loolu amul presse bi léegi ñu bëri euh, dañoo dañoo féete même si par féete kenn terewu ko mais boo koy def itam nga def ko ci objectivité. waaw mais euh, xam nga euh, exemple yu may faral di joxe mooy boo jëlee un journal comme Le Soleil nga jël une télévision comme la RTS nga jël une agence comme la l'APS am na ay journalistes yu fay liggéey. Ah. et pourtant ay journalistes yu xarañ mais féetewuñu fenn. pourtant amul lu ñu leen dul yekk yenn saay waaw mais euh, xam nga nit boo gëmee li nga def nga am sa dignité euh, doo faale ku la wax lii walla laa dégg donc ñun dañu war a mun a fexe fii Sénégal euh, citoyens sénégalais yi hommes d'affaires les professionnels des médias hommes d'affaires yi ñu mun a. Euh, dimbali pour l'émergence d'une presse libre et indépendante parce que affaire bi foofu la. mais euh, Mamadou Ibra Kane euh, état Sénégal ci boppam rawatina ci nguurug Macky Sall bi dafa gën a. même la régulation parce que da ngay jël CNRA wala CORED ces gens là ne régulent que la presse privée maanaam ñi ne ci privé bi rek privé song bu dee médias yi féete ci nguur gi gis nañ lu ñuy doxee opposition. amul pluralité kenn du leen wax dara soit on régule tout le monde wala on régule personne am déet te yéen patron de presse yi loolu war ngeen ci wax. Euh, journalistes yi ak technicien des médias yi am nañ si wàll parce que seen secteur d'activité la. un sénégalais war na si wax problème bu Sénégal mooy euh, embryon état de droit bu ñu amoon depuis. Euh, la première euh, la première alternance de 2000 euh, état bi dafa gën a di destructurer au fur et à mesure depuis 2000 rawatina nag dañ ko wax te de depuis 2012 mais c'est devenu encore euh, ça s'est accéléré ba léegi Sénégal état de droit amut fi te loolu du affaire patron de presse du affaire journaliste wala technicien des médias affaire u citoyen sénégalais la affaire u tous les acteurs de la vie publique muy euh, muy parti politique yi muy syndicat yi muy les différentes associations loolu suñu xeex la ñun ñëpp parce que Sénégal lu ñu amoon fii mooy lan mooy ku nekk avec la première alternance politique avec la deuxième alternance politique ku nekk war nga mun a am sa position nga mun ko exprimer de manière libre sans pour autant que ñu bund xatal la si loolu mu amoon Sénégal mais loolu léegi mu yëg di gën te loolu buy gën di dañ euh, situation de crise politique et sociale bu mu nar indi Sénégal mun na jur ëllëg tey déjà mu ngi commencé jur ay tentative d'assassinat justement loolu leen fas yéenee nas ba lu ni mel dakk ndax démb na Ndour fay la waaye ñu bëri ñu ngi leen di menacé te menacé gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ñii di def ay vidéo que ñii di bind ay wala envoyé ay message ki li li mel. waaw xam nga ñun journaliste euh, wàll bu ndaw la ñu ci Sénégal euh, ñun journaliste ñun rek euh, mënuñu indi ay coppite. Euh, bu nga xam ne mooy engager l'ensemble de la société tey sénégalais yi dañu war a comprendre ma nekk journaliste technicien des médias wala ma nekk association wala ma nekk parti politique wala ma nekk simple citoyen ma comprendre ne tey bu ma jógul dégg nga luy raam si man la jëm si donc loolu c'est Euh, li may faral di wax ñun journaliste du ñu ay zoro ñun ay journaliste duñu ñu ay révolutionnaire ñun journaliste du ñu ay opposant politique dégg nga ñun suñu liggéey dañ ko fonk dañ ko dañ ko tëral ci étique ak déontologie ak professionnalisme ñu def suñu liggéey comme médecin ni muy defee liggéeyam comme gendarme ni mu war a defee liggéeyam et cetera hmm. yow waxtu wi jeex na Mamadou Ibra Kane waaye ginnaaw Macky itam mi ngi jeexal li ko fi desee matul weer normalement euh, ci fukki at ak ñaar jiite réew mi yow en tant que ki jiite CDEPS nan ngay euh, xaymaa liggéeyam jëmale ci euh, bërëbu tasum xabaar yi. kooku moom mun naa ko wax si lu gàtt y un recul extraordinaire de la liberté de presse. et de la liberté d'expression au Sénégal fu mu jëkkee mooy code de la presse bi nga xam ne euh, sous le président Macky Sall lañ ko voté mais code de la presse bi dafa nekk un recul euh, par rapport à la pénalisation des délits de presse euh, tey euh, li dal may Maïmouna Ndour Faye lu daloon station RFM bu Mbacké bu daloon euh, saccage yu le journal Les Échos dégg nga ak yeneen agression yi euh, fii taal nañ fi oto ok xuma euh, journaliste au soleil agressé nañu euh, am euh, am na tentative de xuma d'incendie mm. yooyu yëpp bu amee c'est parce que il y l'impunité dans ce pays là impunité nag réew bu mu am réew boobu jàmm làppe du fa nekk. jërëjëf Mamadou Ibra Kane jiite CDEPS si mbootaayu patron de presse yi jërëjëf Georges jërëjëf soxna Naata. <laughs> Mortala nga ni musique bango Ramadan <laughs> Mortala ku lay euh, summi. jegeen ñi ak ñan. jegeen ñan moom waroon nañ ko filtrer bala muy rëcc. dugg na de.